بك الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين xam naa kon ñu ngi war a jël tey ay cinquante et un bi ci suratul maida suñu borom di waxee ya ayuha alladina amanu la tattaxizu alyahud wa nasara kon mbokk ñu ngi yeesal sant suñu borom subhanahu wa taala mi ñu mi ñu dajale ci weeru màgg wi di chahru ramadan dajalewaat ñu ci biir néegam bu tedd bi dajalewaat ñu ñu tiim ab téeréem di ko jàng muy ngëneel yu dugg ci biir ngëneel ñu ngi ñaan suñu boroom jalla wa ala yal na yàlla wërsëgal ñu lépp lu mu digge ci loolu yal nañu ca boole boolem ñi koy dégg ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf te fayal ñu ñu dox suñu diggante ak ñoom ñu ñaanalit mbokk yi nga xam ne ñoo indi ay ndimbal ba changel ñu suñu micro yi yal na yàlla subhanahu wa taala fay leen kon incha allah tey jii ñu ngi ci nekk fukkeelu fan bi ak juróom-ñaar la nga xamee ne nii mooy chahru ramadan di fàttali mbokk jurit yi rek ne ci la yàlla tànnoon jox ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam ay ndam keroog te xare badr di bis boo xam ni jullit du ko du ko fàtte allahuma lu dul suñ diine ji amuñu droit sos ci lu dul lu yonent bi alayhi salaam jàngale ne bu dul woon looloo day wallahi aka bari daj yu ñuy daja tey di ci frais et milliards aka bari lu jullit yi woote tey la gënoon na yey ñu woote màggal bisu badr am déet xare badr moo gënoon na ma yey ci ñu màggal ko woote di ko màggal màggaluk badr bis boobu nga xam ne yonent bi alayhi salaam mi ngi naan yàlla jalla wa ala su la neexee kenn dootu la jaamu ci kaw suuf te yàlla mboole mi dimbali leen soo leen dimbaliwul diine fay ca loolu it yàqul ci nguurug yàlla gi dara kon loolu suñu borom tudde yowmal furqaan bis bi teqale diggante dëgg ak fen victoire la boo xam ne jullit ñi la ko yàlla defal bi ila yawmi diin loolu nag ñu bàyyi ci xel delloo njukkal sahabatul kiram niñ leen di njukkale mooy ñu xam ne gannaaw yenent yàlla bi ñoom ñoo gën ñeneen ñu dul ñoom ku dul yenent rek saaba la gën loolu la jullit war a gëm mbokk jullit sëñ càmm mën naa baax lool sëñ mbeng sëñ njaay ñoom ñëpp mën nañoo baax lool waaye mënuñoo dab sahaaba sahaaba kenn du ko dab abadan mënut a nekk mënoo defal yàlla lu tax nga dab sahaaba loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kon yal na yàlla fayal ñu leen yal na yàlla saxal ñu ci seen yoon kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
أنفسهم نادمين الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم جل وعلا مني يا أيها الذين آمنوا أيين نيغا خمنا دنجي نغم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي واي بولين ديال يهودي أك نصراني دلين ديف أي فيتي بعضهم أولياء بعض لن تنيوم ني فيتي ولا تدس wa man yatawallahum minkum képp ku leen féetewoo ci yéen day fa innahu minhum kooku day ca ñoom la bokk inna allaha la yahdi alqawma zalimin yàlla day du jubal xéetoog tooñkat fa tara lazina fi qulubihim marad ci noonu ngay gis ñi nga xam ne seen xol feebar da caa nekk yusaari'uuna fihim ña ngay jëkkante jëm ca yahudiya yaquluuna naxsha an tusibana daaira ñu naan ñun di dañoo ragal mu dal ñu wëlbatikoog jamono fa asa allahu an yaatiya bil fath mën na am yàlla day mu indi ci ak ubbee aw amrin min indi wala mbir mu bawoo ci moom fa yusbixu ala ma asaru fi anfusihim nadimin ñu xëy nekk di réccu ca la nga xam ne seen la nga xam ne nëbboon nañ ko ci seen bakkan ya ñu xëy nekk di ko réccu wa yaqulu allazina amanu ci noonu lay waxe ña nga xam ne dañoo gëm haulaai allazina aqsamu billahi jahda aymanihim ay waay ndax ñii ñoo doon waat ci yàlla dëgg-dëgg seen waat innahum la maakum nañoog yéen yéen a yéen a ànd habitat amaluhum màbb na seeni jëf de fa asbahu xaasirin ñu mujj nekk aji perte mi ngi noonu mbokk julit gis nañ ne suñu boroom jalla waala dafa tere julit ne bu mu nekk di jëflanteeg yahudi ak nasaraan jëflanteeg bokk ak ñoom seen lépp dimbilenteeg ñoom ci seen wàllu diine suñu boroom mu ne bu ngeen ko defee perte de ndax ñoom neen ñoo féetewoo te ñoomu neen ñoo féetewoo ay contre l'islam te loolu it mooy li am ba tey da ngay gis ne mboolem kuréel yi nekk ci kaw suuf ay fitna nekk seen digganteeg noono seen noon numéro un mooy l'islam bu dee l'islam moom ñëpp dañuy ànd yéen ngi fàttaliku ko lu ñuy tuddee ghazwatul ahzab ahzab mooy kuréel ya ay coalisé arabi makka yaag yahud ya nekkoon xaybar ak waa xatfaan ak waa bani qurayza yahud yi nekkoon biir madina ñoom ñépp ay noon lañu waaye comme xam nañ ne seen noon numéro un mooy l'islam dañu daje pour xeex l'islam su ko defee julit mbokk doo xaritoog ab chrétien boo xam ne da nga koy dénk sa lépp mi nga xam sa lépp amma bu dee mbiri jëflante àdduna loolu mën ngeen caa jëflante mën nga koo jël mu lay liggéeyal man ngaa dem di ko liggéeyal waaye it mu xam ci yow ne lépp lu aju ci wàllu diine moom doo ci maslaha ak moom bal yow kay yaa kay woo ne ko kay dugg ci suñu diine ji boo bëggee texe loolu ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom yàlla nag ne ku leen féetewoo ca ñoom nga bokk te mbokk yàlla bëggul koy ŋarale ànd ak jullit ñi ànd ak ay noonu l'islam déedéet heure boo féetewoo ak ñoom yàlla subhanahu wa taala féetale la ci ñoom te loolu la yonent bi alei salam doon wax naan man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kuy nurul nurul aw xeet ci la la yàlla di booleel suñu borom mu ne du jubal xeetu toñkat yi waaye bi lislaam amagul doole naafiq yi luñ daan def nee na ñooy ay jurit lañ waaye bu guddee ñu rocceeku dem ci seen mbokk yi yéefiri yahudiya ànd ak ñoom netti li leen lépp lu xew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ñu leen waxee waaw yéen li nga ñu def lu mu doon ñu ne ah ñun kat wóorul ñuy far ci benn camp rek ndax àdduna daa mën a wëlbatiku te bis bu yahudi amee ndam fii musiba dañuy dal naxsha an tusibana daaira loolee mbokk kon dañoo ñaaw njort ci yàlla suñu borom nag dafa bëgg julit di rafet njort ci yàlla julit foo toll jàppal ne yàlla subhanahu wa taala dalay dimbali yàlla dalay jàppale waaye doo jàpp mukk yàlla dalay seetaan ba ay noon di la toroxal suñu borom mu ne mën naam yàlla ubbi indi ak ubbi dimbali yeneen tam wala mbir moo xam ne nii ci moom la jóge ñu xëy di riit ci lañ doon def te na am mbokk julit yàlla mu dina ko def keroog ba nga xamee ne nii yàlla may na yonent bi alayhi salaam dimbalam ba waa makka ñi ñëwoon ak waa xaybar dem yàlla sànni ci ñoom ay ngelaw ña nga xam ne ñooy yahudi desoon madina di bani qurayza te trahiroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa xiirtal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu dem attaqué leen fariqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariqa ñenn ñi mu rey leen ñenn ñi mu jël leen comme prisonnier naafiq ya nga xam ne nag ñoo doon collaborer ak ñoom des nag ak seen gàcce ak seen riccu julit ñi naan xoolal ñii nga xam ne dañ doon waat dëgg-dëgg waat ne ay julit lañu teewul ñu daan dem di jaxasoog ay yahud suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni seen jëf day màbb na ñu xëy doon ñuy perte daan ci dégg it mbokk julit képp koo gis muy waat naan man julit la moytu ko ab julit du dëgg dëgg du waat ne julit la koo gis ci télé bi ñuy wax non non moi je suis un musulman nangam nangam mi ngi noonu xamal ne ngëmam moom des na mi ngi noonu am na kilifa gu fi mas a jaar dafa jaar ci pays communiste yooyu ala kulli xal li ñuy wax mooy l'islam leerul ci boppam mas a jaar ci benn télévision waaye di ko laaj waaye yow julit yow mais yow yaakaar naa julit nga mu ne ko waa julit laa mu ne ko pratiquant nga mu ne ko waaw julit daal des fois dinaa julit mu ne ko woor nag ah non woor ma mënumaa woor ci ne ne ab julit la gis ngeen ala kulli xaal ba ko loolu ñu bàyyi ci xel bu baax gannaaw loolu même waat ci boppam sax koo gis lu mu wax waat rek moytu ko ay fenam lay bëgg na bi rek mbokk julit du waat lu dul ci loo xam ne nii dem na ba jàpp ne su ma waatul luñ ma gëm mais bu dul loolu doo waat ndax julit heure bu waatale mbokk julitam da ko war a gëm suñu borom nag mu ne mi ngi noonee day lañ doon jëf yépp neen na lañ doon jaamu yàlla kës néew du leen jëriñ dara lañ doon collaborer ak yéefire jàpp na dañ leen jëriñ yàlla nasaxal na ko du leen jëriñ dara kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين barakallahu fikum suñu borom mu ne ya ayyuhallazina amanu e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm man yartadda minkum an diini koo xam ne dafa dellu gannaaw ci yéen ci diineem fa sawfa ya'ti llahu bi qawm xerse naa indi yàlla ci benn xeet yuhibbuhum wa yuhibbuuna yàlla da leen di bëgg ñoom ñu bëgg yàlla azillatin alal mu'minin aji ñuy suufe la ñuy doon ci seen mbokk jullit yi aizzatin alal kafirin aji ñuy tedd ñu kawe ñu tar ci ña nga xam ne ay yéeféer lañu yujahiduuna fi sabilillah dañ def la nga xam ne mooy góorgóorlu gu mat sëkk ci yoonu yàlla wala yaxaafuuna lawmata laa'im te duñu ragal yedduk aji koy yedd zalika fadlullahi yu'tihi man yasha lool nag may ngëneelu yàlla moo koy jox ku ko neex wallahu wasi'un alim yàlla mooy aji yaaja aji xam lépp yéen julit ni innama waliyukum allahu wa rasulu seen péete dëgg mooy yàlla ak yonentam wallazina amanu ak ñi nga xam ne dañoo gëm allazina yuqimuuna alsalata wa yu'tuuna zaka mooy ñi nga xam ne dañuy taxawal julli di joxe azaka wa hum raaki'uun te ñoom day dañuy sax di rukkoo wa man yatawalla allaha wa rasula ku féete woo yàlla ak yonentam wallazina amanu ak ñi gëm day fa inna xizba allahi hum alxaalibuun lii di parti bi yàlla day mooy parti bay gañe yaa ayuha allazina amanu e yéen ñi nga xam da ngeen a gëm laa tattaxisu allazina ittaxasu diinakum bu leen jàpp waay ñi nga xam ne dañoo jàpp seen diine ji huzuwan wala iba dañ koo jàpp lu ñuy yëj ay lu ñuy saboote ak lu ñuy fo ak ne jàpp ne diine fo fo fo kese la min allazina utul kitaab ci ñi nga xam ne dañoo jotoon téere min qablikum la leen jiitu woon wal kuffaara awliya bu leen jàppit yéeféer ñu nekk seeni péeti wattaqullah e way ragal leen yàlla in kuntum mu'minin su dee nekk ngeen di aji gëm mi ngi noonu bokk julit suñu borom woo nañu sànq ci ya ayuhal lazina amanu mi ngi ñuy woowaatit ci ya ayuhal lazina amanu ci saar bi ëpp ya ayuhal lazina amanu ci téereb yàlla bi muy suratul maida page bi nga tiim rek xoolal am na ci ñetti ya ayuhal lazina amanu ci benn page yii muy digle dafay doon mbir yu sensible yoo xamee ne borom ngëm rek moo ko mën a respecté looloo tax suñu borom di ci jiital loolu fii mu ne ay yéen jullit ñi képp ku dellu gannaaw ci diina ji day man danaa indi yeneen xeet lu jiitu mbokk mooy murtad yal na yàlla musal ñu ci ca bariwul muy am ci diine lislaam waaye nag léeg-léeg muy am sunu maam yi it néewoon na ca waaye bari na trop ci suñu intellectuel yi tey intellectuel tey biñ demee ba adduna bi ubbeeku ñu indi li nga xam ne mën nañu tudd la franc-maçonnerie ndaw ñu bari dañ ciy dugg te ay secte yoo xam ne boo ci duggee ak yombal lañ lay yombalal ñu nga noonu am na ci kenn koo xam ne ay waxi mi wax sorewul ak waxi franc-maçon naan boo duggee hôtel bañ lay dalal boo demee loo soxla ñu jox la kaza wa kaza naam am na yombal yu bëri luñ lay defal waaye yombal ga doo ci dugg lu dul nga jaay sa diine loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax su ko defee borom bi nag ne képp ku génne ci diine ji yàlla mu ne danaa remplacer ñu la gën wax na ko in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum suma la yakunu amsalakum su kenn demee yàlla indi un million yu ko remplacé la chaque ca mbokk falilah alhamdu suñu borom yàlla tey diinam ji mi ngi koy génne fu nekk ca chinois ya ca anglais ya américains yi gën a fetterlu bés bu nekk ay dizaine de milliers ñoo ciy dugg l'islam ca ñu ci bëri sax kenn woowu leen yàlla subhanahu wa taala rek moo leen moo leen indi amoon naa sama benn xaritu matelot moo ñu daan nekk ci bateau yi nee na dañoo mës a accosté benn ville ci Chine biñ paree bi àjjuma jot ñu ne waaw ndax fii fii am na juma ñu ne way dëkk bi am na juma nee na ñu dem ci juma ji mook xarita bi mu àndaloon juma jaa ngi fees ñoom ñaar rek ñoo fi nit ku ñuul nee na biñ julee pare imam bi woo leen ñu ñëw mu ne yéen fi ngeen jógee ñu ne ko Ifriqa xam nga Sénégal ak Gambie fi la yem yooyu bitim réew Afrique rek lañu xam ñu ne ko ñun Afrique lañ jógee mu ne waa jàkka ji xool leen diine l'islam yéeg na ba ci africain yu ñuul yi gis waaw ngeen xéwlu yàlla africain yu ñuul sax diine l'islam yéeg na foofu te yow boo gisoon fi ab chinois buy jàngal xuraan da ko doon da lay yéem gis ngeen kon loolu mbokk mooy mbaaxug yàlla mooy yéen arab yi bu la neexee génn leen képp ku génn ma indi ñeneen te it effectivement jamono bi que yàlla yi wàcc ay mën nga wax jullit ñi à peine matuñu sax ay deux cent mille yaa ngi dégg wala ca lay yem mais gis nga borom bi yàlla subhanahu wa taala tey on parle de un milliard et demi wala lu ko ëpp ah on parle d' accord kii sax mu ne chiffre yi ñu mujjee génn mooy un milliard huit cent millions ci ay doomu aadama yi wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah kon ku mu neex demal yaa xam waaye boo demee it yàlla mu ne danaa indi ñeneen ñoo xam ne yàlla mu ne danaa leen bëgg ñu bëgg ma dañ ne mbëggeelu yàlla balaa wér yàlla lay jëkk a bëgg yàlla yàlla bëggul yaa ngi dégg ki yàlla bëgg du bëgg keneen ku dul yàlla leneen lu muy bëggit yàlla tax mu bëgg ko du bëgg lu dul ngir yàlla suñu borom yàlla mu ne sama jaam jegewu ma lu ma gën a bëgg li ma farataal ci moom gannaaw farata yi du denc góorgóorlu ci naafili yi ba ma bëgg ko gis ngeen de ba ma bëgg ko waaw ñi yàlla bëgg lan mooy seen mandarga ndax mooy ñi nga xam ne ñooy ñoom la ñuy rang guddi ak bëccëg ndax borom taal yu rëy yi borom toilette yi ndax mooy borom ñuy ilaaxir mbokk mandarga bi yàlla bëgg yàllaa ko waxal boppam nee na su ma ko bëggee kuntu samahu lazi yasma'u bihi noppam yi dootu ci nangoo déglootu lu dul lu neex yàlla te ji boo demoon ñu toog ab jataay rek waa ji ne xay musique kañ kañ waay fay li waay am déet day day naqari ci moom gis ngeen bëtam yi dootu ci nangoo xool lu dul lu neex yàlla loxo yi dootu nangoo jël lu dul neex yàlla tànk yi dootu ci nangoo dox lu dul neex yàlla comme ni leen ko waxoon fan yi passé loolu mooy mandarga wali yu yàlla waaye bu dee ni ñun li ñu gëm wali yu yàlla mooy ñi nga xam ne chaque guddi ñu daje ca arash mi nga doon bii ñoo fa ñuy dund ak ñuy dee loolu ay wax rek la mbëggeelu yàlla ci jaam bi mooy mu bëggloo ko li yàlla bëgg xababa ilayhim al iman wa zayyanuhu fi qulubihim mooy ñooñu la yàlla bëgg yàlla leen bëggloo ngam taaral ko ci seen xol bokk na it seen mandarga moo ko ki yàlla bëgg na nga koy xamee day bëgg julit kum yëg ne kii gëm na yàlla wéetal ko rek da koy bëgg suufe ci kanamam suufe goo xam ne suufeeg yërmande la comme la ñu suñu borom wax ci waajur yi waxfit lahuma janaha zulli min arrahma waqul rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira sa waajur toroxlul ci moom toroxlug yërëm leen tey ñaan yàlla kii leen naka noonu julit noonu la yërëme mbokk julitam suñu borom wax ci suñu yonente alayhi salaam jox ñu ci ay ay ay misaal nee na foo ko romb ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah gaa yi ki yërëmoo ko waay nga toog ak moom mu ne isho alhamdulilah nga ne ko yarhamukallah yërëmoo ko waay mu ne bu feebaree seeti ko yërëmoo ko waay bu dee bàyyi la say soxla dem jullee ko yërëmoo ko waay àndal ak moom ba ca armeel ya nga ñaanal ko borom ni ngi noonu isa bu ñëwee sàkku ci yow nasiha laayu ko biir kon lii mooy woyof ci sa suufi mbokk julit koo gis jàpp ne moo la gën doo xeeb kenn doo réeréelu ci kenn yeneen bi alei satu salam mu ne doy ñu nit ki rek day la ay bakkaar nga xeeb sa mbokk julit nee na loolu rek doy na bakkaar mi ngi noonu kon azilla alal muminin waaye dañuy tar ci yéeféer képp ku ñu gis ne da ngaa noonu ak yàlla ak yonent yàlla seen baay la seen doom la ku mën doon seen noonu la borom bi mu ne laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmil axiri yuwaaduuna man xaada allah wa rasuluhu doo gis mukk gëm yàlla gëm bis penc di soppanteeg koo xam ne daa weddi yàlla yonent bi walaw kaanu abaahum aw abnaahum aw ixwaanuhum aw ashiratuhum comme naka yàlla jàll waala di waxe même bu doon seen i baay même bu doon seen i doom seeni frère kum mën a doon su yégee ni kii noonu bi yàlla rek ñoom it def nañ ko ak noonu mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala moom lay wax ci yeneen aaya muhammadun rasulullah wala zinamaahu ashidda wala alkuffar ruhamaau baynahum yeneen bi ak sahabaam seen mandarga mooy dañoo tar lool ci yéeféer yi waaye am yërmande lool ci seen biir gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala ni dañuy jihaat ci yoonu yàlla lan mooy jihaat ci yoonu yàlla mooy effort boo def ngir diine yàlla di jëm kanam ci sa alal ci say wax ci say jëf bépp effort boo def dimbile ci diine rek loolu forme jihaat la yi nga noonu la ca gën a jiitu mooy jihaat ak sa bakkan bi bam nangul yàlla loolu moo ci jiitu borom boobu subhanahu wa taala mu ne du ñu ragal yedd ku leen di yedd ku leen mën a saboté yaa xam ku leen mën a ree yaa xam loo jege-jege ak ñoom ci woy jurag yooyu toppate wuñu loolu maadaama xam nañ ne ñoom ñi ngi ci li neex yàlla seen yoon nekkatul ci ku leen di yedd borom bi yàlla jalla waala nag mu ne lii ngeneelu yàlla la bu muy jox ku ko neex mi ngi noonu ca yet mbokk mi ngi noonu doomu aadama bi xamal ni yegg ci grade yu kawe yi mbaaxu yàlla la loola tax julitit day boole effortam ak ñaanam mi ngi noonu allahuma hdina ila ahsani al akhlaqi wal a'mal la yahdi li ahsaniha ila ant wa qina sayi'aha la yaqi sayi'aha ila ant yonente bi alayhi salaam bokk na cay ñaanam yàlla yàlla na ñu yóbbu ci la gën a kawe ci jukkoo ak la gën a rafet ci jëf kenn du ca yegg lu dul ko ca yeggale yàlla na ñu musal ci yu ñaaw ye kenn du ci mucc lu dul ko ci muccali borom boobu nag mooy ne waasi alim ku ne xaj na ci yërmande yàlla loolee ñu bàyyi ci xel bu baax yàlla yemalu ko comme ni yahudi ba ñuy waxee ne pour nga baax yow rek nga mën a doon la allahu wasi koo mën a doon ak génération boo mën a doon xaj nga ci yërmande yàlla borom boobu nag ne seen péete dëgg mooy yàlla ak yonent yàlla ak ñi gëm mbokk jullit yàlla lay féetewoo ak yonent yàlla ak ku gëm ca ñooñu gëm lan mooy seen mandarga borom bi ñu ne dañuy taxawal julli di joxe azaka wala waaye niñ koy waxee daa iman suñu sañoon Sénégal gépp àgg dem aljanna yàlla na yàlla def ko waaye charte ba day mbokk mooy ñun ñëpp nañ bokk gëm yàlla cay taxawal julli di joxe azaka képp ku la bëgg yóbbu àjjana ca ne la bàyyil julli bàyyil woor ngal la waaye loolu wóorut yàlla waxut loolu de yonent yàlla waxut loolu de seen péete ñi ngeen di war a féetoo mbokkum julit doo wax kenn mbokkum julit lu dul koo gis muy julli ak a joxe azaka bu dee bu dee am na alal fa in taabu wa aqamu salata wa ixwaan wa atu zakat fa ixwaanukum fi ddin loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ni loolu mu wax ne wahum rakiun firiwul ni waajib balaa génn zakatam day rukko ba pare joxe azaka la wallah mooy dañuy joxe yàlla dafa tudd julli ba pare daa di tudd ponk yi ci gën a màgg nga xam ngeen doomu aadama bu taxawee taxaw na ñëpp dañuy taxaw mais ki ngi gis mu taxaw magum jëm taxaw mujj mu daal di sëggal ndig ndiggam loolu téye ci ay oomam mi ngi màggal ko jara màggal muy yàlla jalla wa ala looloo tax jullit du rukkal ku dul yàlla du sujjuutal ku dul yàlla mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala kon noonu la wax mu ne nekk féetewoo yàlla ak yeneen ci yàlla ak ñi gëm xamal ne parti bi yàlla mooy parti bi gagné ay mbokk di leen xamal ne kaw suuf ñaari parti fi nekk ñaari parti fi nekk seen résultat élection mi ngi am yowmal qiyaama résultat yi élection yi ña nga xam ne ñañu fal ña ngay ña ngay am yowmal qiyaama mooy xizbullah parti bi yàlla parti ba yàlla far ak yonentam yàlla yàlla faral ñu ca mooy ñi gëm yàlla bokkaale wuñ ko dara tënku ci sunna yonent bi wàññi wuñ ca dara yokkuñu ca dara borom bi nee na ñii ñooy al xizbullah xizbullah humul ghalibun borom bi nag subhanahu wa taala bàyyi loolu dellusiwaat ci julit ñi ay yéen julit ñi ay waay bu leen jël ñi nga xam ne ñoom jàpp nañu seen diine ji lu ñuy war a saboote rek la jàpp nañu seen diine ji am pokese la bu leen leen jël di leen féetewoo waaye mbokk cey wala firi dañ naan bul bañ ku la tibbal ci gaalu xaj waaye fexeel ba bu mu la ca fekk ngay lekk yahud yi day tibbaloon nañ ñu ci gaalu xaj ndax nee nañ suñu diine ji fokkese ak puukare la waaw gaa yi ndax julli ci tey lekkuñu ko ah kay daje yi ngay gis tey ñu daje pokkese la ëpp ci daje yu jullit ñuy daje tey am pokkese tëgg fecc jalgati lekk naan jigéen ñi takkaayu jigéen ñi jaayu muy fàttali sama benn mbokku Ousseynou Fall dafa nekkoon na Bassat Kowet nee na mu dafa filmé woon fii benn daje ci daje Sénégal yi dina yóbbu ko di toog ak mbokki Kowet seen ñu koy seetaan ñu ne waa ñii lu ñuy def nii ñu ne ah dañuy jaamu yàlla de mu ne dañuy jaamu yàlla am dañuy wane ne àddina nii la mel yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk da ngay gis ne tey jii yu bëri ci ndaje yi suranoo sax lañ koy far yóbbu da ngay gis daje bu ñu tudd daje diine boo ñëwee am na fu seen yaram di tànge nga nga filmer leen yóbbu filmer lay xew sorano la nekk fële moo gën a xumb moo gën a jalgati loolee mbokk diine l'islam du diine foog islam xamul diine tëgg fecc fetkaxu woy loolu du diine l'islam islam mooy allazina iza zukira allah wajilat qulubuhum al islam mooy as sakina comme ni ñu koy yonente bi alayhi salaam waxee yàlla na yàlla nangul suñu jotaay bi mooy gis ngeen ñëw ñëpp na tekk di déglu kàddug yàlla bu Cheikh Ousmane day jàng ñëpp na tekk bu ñuy firi ñëpp na tekk déglu kàddug yàlla li mooy lislaam waaye tëgg fecc pakkar ñi génn lekk naan ila axiri laa wallahi bokk loolu daa dab lislaam loolu la ñu yahudi yéene woon malheureusement jullit ñu bëri dugg ci jàpp nañu seen diine lahwan wala iba suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ragal leen yàlla su dee ne gëm ngeen ay ñaar bu leen jël yahudi ak nasaraan di leen def ay péete waaye it lañ jàpp ne moom ngeen def diine fexe leen ba seen diine bu leen dem mukk ba foye ko mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne wa iza nadaytum ila salaa heure bu ngeen di wootante jëm ci julli ittaxazuha huzwan wa la'iba ñu jël ko lu ñuy yëj jàppe ko it am po zalika bi annahum qawmun la yaqiluun li waral lool day mooy ñoom xeet lañu boo xam ne duñu xellu qul ya ahlal kitaab nee leen ay yéen ñooñu téere bi hal tanqimuuna minna ama ndax da ngeen nekk di fayu ci ñun illa an amanna billah lu dul ne ñun day dañoo doon ñu gëm yàlla wa ma unzila ilayna ak lañu wàcce ci ñun wa ma unzila min qablu ak lañu wàcce lu jiitu wa anna aktharakum fasiqun te la ëpp ci yéen de ci ci ci yéen day dañoo nekk génnuk topp قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله نل ما ndax du ngeen kay ma wax leen lu gën a ñaaw ci loolu la nga xam ne mooy ak payuk wàccuwaay ca yàlla man la'anahu allah wa ghadiba alayhi koo xam ne yàlla da ko rëbb ca mere ko wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazir def ci ñoom ay golo ki mbaam xuux wa abada taaxuut ak ka jaamu cheyt taaxuut mooy lépp loo xam ne dafa jéggi dayoo woote ci jaamu ci leneen jaamu leneen lu dul yàlla ulaika charru makana ñoon day ñoo gën a bon wàccuwaay muy place wa adallu an sawa'i sabil ñoo gën a réere la gën jaa jub ci yoon wa ida jaa'ukum qaalu amanna buñ la dikkalee ñu ne ñun kat gëm nañu wa qad daxalu bil kufri wa hum qad xaraju bihi te ñoom day duggee nañu seen kéefér ga génne nañu seen kéefér ga wallahu a'lamu bima yaktumuun yàlla moo gën a xam la ñu nekkoon di ko nëbb mi ngi noonu bokk bokk na ci loo xam ne yahud yi daa nañ ko saboote ndax la daan nekk ci biir jàkka yi moom daawuñu ko xam waaye fi nekk ci madina dañ daan dégg nodd gi jóge ci madina heure bu ñu déggee nodd gi ba noddkat bi ne allahu akbar allahu akbar ko wax nga dëgg de ashhadu an la ilaha illallah wax nga dëgg de ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ne ko yaa mën a kàcc dégg daal di xàqtaay ree gis ngeen ala kulli xaal mbokk suñu borom nee na li waral loolu may xelluwuñu waaye it nga la waaye mbokk jullit it lu bari ci jullit yi tey xelluwuñu de xamuñu luy nodd mbokk nañu xam ne nodd daf ñuy fàttali lu rëy yonent bi alayhi salaam daa dajale ay sahabaam ne kat war nañoo ut léegi nu ñuy fexee bay xamal nit ñi waxtu julli jot na ndax montre amul dañ daan dem rek kii jaar kër moromam woo ko léeg-léeg ñu ñëw dajaloo ci jàkka ji trente minutes sax wala quarante di xaar yonent bi alayhi salaam mujj gi nag ñu ne nañu xool loo xam ne buñ ko defee nit ñi xam ne julli jot na waay ñoo daje réunion am ñu ne nañu ut benn clairon boo xam ne dañ koy ëff benn béjjén bu ñuy ëff ku ko dégg xam ne julli jot na yonent bi ne non loolu buñ ko defee dañuy nurulul yahud yi ndax ñoom noonu la ñuy wootante seen synagogue yi am ku ne nañu ut kon benn cloche kon waaw kon ñu am ko ne nañu wut kon benn cloche cloche boo xam ne buñ ko tëggee rek ñépp xam ne julli gi jot na ñépp xam ne julli gi julli gi jot na loolu bi mu amee ñu gis ne lo loolu bi mu amee yonent bi sallallahu alayhi wasallam na leen loolu buñ ko defee it ba tey dañuy nuru nuru lu kon chrétien yi am ñu wax nañ taal sawara mu ne kon dañuy nururul majus yi baba ñu fay jóge amuñu lu ñuy décider ca guddi ga yàlla won ci gént kenn ci ndawi sahaaba ya di abdullah ibnu zayd mu dajeeg benn waay mi ngi yor benn cloche mu ne ko dooma jaay sa cloche mu ne ko loo koy doyee mu ne ko pour bu ñuy no- julli di ko woo di ko tëgg julli jot na mu ne ko xanaa dookaay wax lu lu gën loolu mu ne ko waxe kay mu ne ko bi ngeen di julli da ngeen dul ko taxaw wax allahu akbar allahu akbar ba ñu nodd jeexe abdullah bi mu xëyee dem ci yeneen bi alayhi salaam nettali ko gént gi mu ne ko gént gi de ci yàlla la jóge bilal moo la gën a kawe baat wol bilal nga jàngal ko ko ca la bilal commencé di nodd loolu mu lay won ñëw ndawal julit yeneen bi alayhi salaam day li teewoon mu wut cloche wala joololi wala béjjén mooy bañ a nuru nurulu yahud yi ak nasaraan yi loolu tax fexeel ba sa di ba sa sa wàllu diine ak sa wàllu dara bul nuru nuru lu mukk ab chrétien wala ab yahud loolu nga bàyyi ko xel bu baax mi ngi noonu ñaareel bi it mbokk nodd googu ab invitation la boo xam ne dañoo ñëw jox la ko ne la kay wuy si yàlla yàlla moo la woo noddkat bi loolu lay wax allahu akbar yàlla gën a màgg lépp ashhadu an la ilaha illallah maa ngi seede kenn yeewul ñu ko jaamu ko dul yàlla ashhadu anna muhammadu rasulullah maa ngi seede ne muhammad yonent yàlla hayya ala salaa kaay leen ci julli gi hayya ala falah kaay leen ci li leen di texe taxa texe adduna ak alaxira gis ngeen allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah loolee mbokk di woote bu màgg nga xam ne it ña koy féetewoo suma bilal baale ña koy féetewoo tuyaa bu ju rëy am nañ ko ba ko noddu tuyaa bu ju rëy am nañ ko ba borom xam-xam yi dañ ne nodd moo ëpp tuyaaba imam bu dee dañu daje ci jàkk ji rek julli dem noddkat bi moo ëpp tuyaaba imam bi jiite imam nag xëy na suñ càmm suñ càmm na ma ba imam mu mën naa rawee feneen bu dee imam buy jàngale diine loole moom moo gën a kawe ak nodd waaye bu dee imam boo xam ne dañu nekk jàkk yi rek kii nodd kii jiite noddkat bee gën fuuf gis ngeen yonent bi wax na ci ngëneel yu bëri bilal bilal nee na ma noppi waaw yonent bi wax na ci ngëneel yu bëri waaye ala kulli xaal ci gàttal ci gàttal saxaaba yi nee nañ ko ah mais mu yàlla yónni baaw du fi jógee nit ñi di am problème ci ci ci la nga xam ne mooy nodd googee yonent bi sam nee na nit ñi bu ñu xamoon li ci nekk doon nañ ko loterie yonent bi ne déedéet su ngeen déggee koy nodd wax leen li muy wax su paree ngeen julli ci yonent bi yàlla may leen tuyaaba ji mu am gis ngeen noddukat bi day invité nit ñi am tuyaaba te mooy li nga xam ne moom lay wax waaw li nga xam ne moom lay moom la noddukat bi di wax mboolem koo xam ne nii ànd nga ak moom ci loolu yàlla da lay may tuyaabay noddukat bi mi ngi noonu gannaaw ba itamit ñooy tàmmal suñu bopp suñu déggee nodd ba pare nañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba ñu wax la gën a gàtt yàlla yàlla na nga may yonent bi wasila yéen ndaw ñi jàng xam ngeen ñaan ga ca gën اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته loolu mooy ñaan ga waaye boo ko mënul foo dégg noddukat bi àndal ak moom suy wax hayya ala salaa hayya ala falaa nga wax la hawla wala quwwata illa billah ñeenti yoon mi ngi noonu gannaaw ba nga nodd gi pare nga julli ci yonent bi la gën a gàtt allahumma salli ala muhammadin wa sallim boo la neexee julli ni ngay jullee ci booy taaya moo gën gannaaw bi nga ne yàlla yàlla na nga may yonent yàlla muhammad al wasila mi ngi noonu loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax ak yeneen ngëneel yu nekk ci nodd gannaaw ba suñu borom ne ay yéen jullit ñi laaj leen ahlul kitaab mooy yéen lan ngeen ñuy critiquer dañu ko saboter di dal suñu kaw lu dul ne ñun ban défaut lañ def lu dul dañoo gëm yàlla gëm li ñuy wàcc ci yéen ak la nga xam ne moo ko jiitu woon te li ëpp ci yéen ay kàccoor lañ te loolu it mbokk moytul yéeféer di critiquer jullit ci diineem loolu xawees na ko mën a comprendre ndax yéeféer la mais bokk na li gën a métti xol jullit buy critiquer mbokk jullitam ci diineem xale bu jigéen bii génn muuru muuraay bu jekkam ñu tey ko di ko saboter ses tentes roulantes seen nangam seen nangam xale bu góor bi bàyyi ab sikkimam ñu naan xoolal ak mbooyam gi ci kanamam gi xoolal cikkalam bi xoolal nangam ak bi da ngay war ngay poser question lan moo tax mu bàyyi ab sikkimam lan moo tax ab yërëm yóbbu ko ci ko senam ndax vice la bu xew wala ay association bu mu bokk la lii yàlla moo ko ko digal nan nga koy critiquer ci loo xam ne yàlla moo ko ko digal mi ngi noonu ndax da ngeen di dal suñu kaw di ñuy critiquer ci loo xam ne nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy ka nga xam ne moo ñu ko digal te li ëpp ci yéen day dañoo nekk loo xam ne nii ay fasiq lañu borom boobu subhanahu wa taala nag ne xam leen ne kaay ma xabaare leen la nga xam ne moo gën a ñaaw wàccuwaay li ngeen ñuy yéene te mooy yéen ñi nga xam ne seeni maam yàlla rëbb na leen def leen ay mbaam xuux def leen ay golo ca seen maam yu jëkk ya ca la dal seeni maam ñoom ngeen di àndal yowmal qiyaama ndax ricciwuñu dara ci seen comportement maam suñu borom yàlla nag ne ñii ñoo gën a bon wàccuwaay ñoo gën a sanku ca la nga xam ne mooy aw yoon bokk na lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yahudi bu ñu ma saan ñëw daal di ñëw ah Muhammad ñun gëm nañ ne yonent yàlla nga ñu ngi noonu bu ñu delloo ca seen kàccoor ya daa di un ni dara yóbbuwuñu ca innama nahnu mustahzi'un dañ koy yëjji rek sabote rek lañ koy def ah fekki ne suñu borom yàlla ne déedéet loolu ñu lan dañoo gëm déedéet kéeféer lañ duggaale kéeféer lañ génnaale te yàlla jalla wa ala moo gën a xam la nga xam ne dañ koy nëbb te bokkoon na ci politique yahudi bàyyi ba mbooloo mu bari teew ñu ñëw daal di dugg daal di ne ah ñun tuub nañu dugg nañ ci lislaam bu ngoon jotee ñu ne ñu génn ci aminu ala bi lazi ala ala lazina ala allazina aminu wajha naar wakfuru axirahu la allahum yarjiun loolee mbokk nekkoon na ci la nga xamee ne nii yahud yi dañ ko daan def ala kulli xaal suñu borom yàlla loolu la wax ci wàllu googe kon incha allah ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu yeggalal ñu وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين بارك الله فيكم suñu borom kon subhanahu wa ta'ala mu ne ah wa tara kathira minhum da ngay gis lu bari ci ñoom yusari'una fil kufru ña ngay jëkkante ah fil ismi ña ngay jëkkante ca bakkaar ga wal udwan ak noono ga ñuy noono wa aklihimu suxt ak lekk ga ñuy lekk la nga xam ne mooy lu xaram a suxt mooy bépp alal ju xaram la bisa ma kaanu yacmaluun aka bon la ñu nekkoon di ko jëfe lawla yanhaahum rabbaniyuuna wal ahbaar ana lu tere lu lu lu teewoon mu tere leen ña nga xam ne ñoom ñooy seen sëriñ sa rabbaniyun mooy ñu jiite mbooloo di leen jàngal wal ahbar mooy borom xam-xam yu màgg ya même bu dee amuñu benn mbooloo bu ñu yor an qawlihim al ism wa aklihim soxt ana lu teewoon ñu tere leen seen waxi bakkaar ya ak seen lekk lu xaram la la bisa ma kaanu yasnaun aka bon lañu nekkoon di ko faggu mi ngi noon di ko jëf wa qalat al yahud yadu llahi maghlula bokk na lu yahud yi doon wax loxo yàlla day dañ koo njoñ ghullat aydihim ñoom kay lañ njoñ seen loxo ya walu walu inu bi ma qaalu ca rëbbees nañu leen ca la ñuy wax bal yadaahu mabsuutataan yàlla kay ay ñaari loxo ma nga tàllalu yunfiqu kayfa yashaa mooy dépense nu mu ko neexe wala yazidanna kathiran minhum dana yokk nag la ëpp ci lu bari ci ñoom ma unzila ilayka min rabbik lii ñu wàcce mu jëme ci yow jóge ci sa boroom tughyanan wa kufra lii di jéggi dayoo ak la nga xamee ni nii moo mooy ak kéefér wa alqayna bayna wa alqayna naam wa alqayna baynahum al'adawata walbaghda nii lañu yónnee ci seen diggante lii nga xam ne mooy ak noonoo akuk meroo ila yawmi alqiyama ba baa bis penc di taxaw kullama awqadu naaran lil harb heure bu ñu taalee sawara ngir xeex atfa'aha allah yàlla subhanahu wa taala daa di koy fay wa yas'awna fi l ard fasada ña ngay dox ci kaw suuf nekk aji ñuy yàq wallahu la yuhibbu almufsidin te yàlla dee bëggul yàqkat ya mi ngi noonu mbokk gis nañu ne yahud yooyee day doon wax ne gëm nañu borom bi mu ne gëmuñu lañ doon wax ci làmmiñ la yem gannaaw ba nga gis leen ña ngay dox ci kaw suuf di feeñal bakkaar akuk noonu ak lekk la nga xam ne mooy lu xaraam loolu it mbokk jurit nañu xam ne suñu borom yàlla du atte kenn ci ay jëfam du atte kenn ci ay jëfam bu doon looloo naafiq yi ñooy jiitu ñëpp waaye suñu borom yàlla nee na naafiq yi ñu ngi naan gëm nañu waaye borom bi mu ne déedéet dañuy fen su ko defee borom bi ne loolu ñu ngi koy def waaye nag kan mooy responsable numéro un kan mooy responsable numéro un suñu borom yàlla mu ne waaw seen sëriñ si nga xam ne ñoo jiite mbooloo mi ak borom xam-xam yi nekk ci dëkk bi lu téye woon ñu tere nit ñi wax yu bon yi ñuy wax lu téye woon ñu tere nit ñi alal ju xaraam di ñuy lekk waaye mbokk duñ leen ko tere waa ji bu dee ne da- yaa ngi ñëw ñu nekk sa mbooloo loo leen sant ñu def loo leen laaj ñu jox la la tax mooy gëm gëñ la gëm a tax soo leen leeralee yoonu dëgg ñu dem bala fa am déet nga noonu soo leen leeralee yoonu dëgg ñu dem bala fa looloo tax dañ leen di bàyyi rek lu leen neex def bu ko defee boo bëggee milliard na gaa yi indi leen milliard ñetti fan milliard teew loolu mbokk da ngay gis ne musiba la waaye yéen a ngi fàttali ko yeneen ci yàlla Muusa keroog ba mu ñëwee fekk xeet bi di jaamu nag ci kan lu jubal ci Haaruna lu jubal poñe Haaruna xëcc sikkim bi xëcc bopp bi diri ko borom bi neen da koo diri ya jurruhu ilayhi ndax pour moom Haaruna mooy responsable numéro un yonent yàlla mu Haarun ne na ko ah Muusa e waay bul ma toroxal ci kanamu nit ñi laa tushun bi al aada man tere naa leen li ñoom kaadu yaqtuluuna ni tuuti tey sax ñu rey ma ndax li ma leen di tere lu bon ana boot mbokk ban sëriñ tey mooy taxaw taxawaayu Haarun nga xam ne mbooloo ma nga jiite da nga taxaw heure boo déggee ñu wax wax ju ñaaw nga na leen wax jooju bu mu amati loolu kenn du ko wax soo leen gisee ñu ne ci liggéey yu xaraam ngeen xamal ne liggéey nangam dafa xaraam waaye hey suñu borom dane ahlul kitaab lu tee woon borom xam-xam yi tere leen wax ju bon ñun day ñun suñuy borom xam-xam ñooy wax wax ju bon ñun far sëriñ sa jiite mbooloo mi la ñuy gis ñuy wax wax ju bon far gaa yi loolu nekk du musiba bu gën a garaaw musiba ba yàlla mi nga doon ŋàññi ña jiite seen mbooloo te bu ñu waxee lu bon duñ leen ko tere ñun da ngay gis koo xam ne moo jiite mbooloo ba pare di leen wax wax ju bon dox seen diggante jaamu yàlla gëmloo leen ne àllaaxira du arrangé ne lépp loolee mbokk di mbir boo xam ne ku leen ci war a bàyyi xel suñu borom bàyyi loolu daa dina yahud yi day nee nañ yàlla dafa nay yàlla ab loxoom dafa lemu dañ koy yeew ca gannaaw yàlla dafa nay ndax li ñu bëgg ci alal ne nañ yàlla joxu leen ko suñu borom yàlla mu ne rëbb naa leen ci li ñuy wax mi ngi noonu bal yàlla mu ne seen loxo ya kay yal na yàlla dagg seen loxo ya ay yàlla lem seen loxo ya te it mbokk yàlla du ñaan yàlla day def looloo tax buñ la laajee ana ban xeet ñoo gën a nay ci kaw suuf bul hésité nel yahud nel yahud maa ngi leen koy wax fii ci fan yi passé boo xoolee ñu xam histoire affaire journalisme en Occident tubaab yi heure bu ñu daan melal yahud nee naa la ay griffe lañ koy wutal comme ay wey gaynde yooyu nii lañ koy def wutal ko ay bec pour ñoom yahud dajale alal rek la xam dépense zéro waaye dajale koo gis dañuy ay multimilliardaire yëre bu baax sax nanguñ koo jënd kon la leen yàlla ñaanal la rullat ay diihim dal na leen mooy nay lañu def borom boobu subhanahu wa taala it ne rëbb nañ leen ci wax du ñuy wax bal yàlla kay loxoom yi moo tàllalu te it moo ko gëmal loolu yàlla nee na ay ñaari loxoom dañoo tàllalu gëmal ne yàlla ñaari loxoom dañoo tàllalu nan la loxo ya mel laysa ka mislihi shay loxo boo xam ne day ngëb asamaani juróom-ñaar ak suuf ndax loolu mënees naa xam nu mu mel la wallahi loolu gëmal ne yàlla am na loxo yàlla am na loxo no loxo ba mel laysa ka mislihi shay yàlla dara melul ne moom yaddaahu mabsuutataan borom bi nee na mooy dépenser nu mu ko neexee xool ku ko neex mu jox ko ku ko neex mu xañ la waaye du ni ngeen ko bëggee yéen mooy yàlla xëpp ñëpp alal suñu borom ni yàlla nee na walaw basata allahu rizqa li ibadihi la bagaw fi l ard bu yàlla xëppoon ñëpp alal adduna yàqu am déet gars yi bu ñëpp nekkoon millionnaire kuy nangoo dem di débouché douche yi bu ñëpp nekkoon milliardaire kuy nangoo yéeg onzième étage di yéega ay briques bu ñëpp nekkoon milliardaire kan mooy dem dugg ci ci ci biir mine yi di génne ay ay pétrole ak ay nangam ak nangam la wallah kon yàlla nii mu defee rek noonu la jox ñi xañ ñi ñam xañ jaay seen doole ngir àdduna dox bal yadaahu mabsuutataan yunfiqu kayfa yasha allahuma borom bi nag ni li ma wàcc ci yow muy alquran na am bewoon nañu kéeféer mi ngi woon ci ñoom waaye alxuraan nag dana ko gën a yokk alxuraan dana ko gën a yokk ndax dañuy dolleeku kéeféer ci seen kaw kéeféer borom bi it nee na nii laa sànnee ci seen biir noonoo akuk meroo moo gaa yi gis ngeen Israël ni ñuy sonale suñ mag palestinien yeey noonu lañ noonoo seen diggante y a les partis travaillistes y a les partis Likoud y a les orthodoxes noonu lañ bañante noonu lañ noonoo seen biir lënkaloo gi kay mooy contre l'islam waaye bu dee seen biir ay noonu lañu ndax yéen a ngi fàttaliku premier ministre Isaac Rabin kan moo ko rey ay mbokk juifam ñoo ko rey kon loolu la borom bi subhanahu wa taala nee na sànni na ak noonu diggante yahudi ba ila yawm al qiyama heure bu ñu taalee guerre nag yàlla fay guerre ba te mbokk xamel ne li ëpp fitna yu am ci kaw suuf yahudi ñoo koy taal yërmande yàlla rek moo ñuy dab heure bu ñu taalee guerre yàlla indi ko borom bi nag nee na yaa ngi gis ñi nga dox ci kaw suuf di yàq ci yàlla bëggul yàq gars yi les casinos yi gën a mag aux États-Unis en France demal laajal ko xam ay yahud ñoo ko moom les plus grands cinémas yi fi amoon ay yahud ñoo ko moom les plus grands salles de jeu ya nga xam ne am na en Occident en un un peu partout en Asie ay yahud ñoo ko moom mën nga wax la ëpp ci alalu adduna bi boo doon xool ña nga xam ne ñoo cay génn ay yahud ñooy nekk ca bopp ba yàq gi gën a yàq ci modd yi nga xam ne dañ koy tasaare jàngal nit ñi ak bon lépp suñu borom mën a yas aw na fil ard yàlla waxul fi Amérique wala fi Asie wala fi Sénégal fil ard mboolem kaw suuf yàqug yahud yegg na foofee looloo tax jullit ñi war leen a bàyyi xel war leen a moytu war la yee seenu njaboot ci loolu yal na yàlla musal ñu ci seen ay yal na yàlla may ñu afiye fi dunia wal axira yal na yàlla tasaare lislaam dooleel jullit ñi may leen teddaangeeg diine ci àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi jéggulu suñu rajo bi dañ ko maîtriser gul ci suñ technicien bi nekk fii incha allah barakallahu fikum waaw bismillah naam waaw waaw wala kulli xaal nit ki booy dépenser da ngay jëkkee ci ñala ña nga njaboote yonent bi dane ibda bi man ta'ul koo xam ne ña nga njaboote da nga leen war a jox seen àq joxoo leen ko àq ba nga jël ko jox ko keneen yàlla du ko nangu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax tubaab bi li muy doy war doy war dañ naan charité bien ordonnée commence par toi-même te mooy sa njaboot ngay jëkke yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn waaye ñëw na ko ba am naa dinaar mu ne sarax ko sa njaboot mu ne ko am naa beneen mu doo ko wax sarax ko keneen mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw la kenn man suula ko kenn man man suuxala ko suñu borom ne aaya yàlla moom penkoog sow fi ngeen jublu da ngeen fa fekk kàddug yàlla mooy yahudi bi ñu naan lu tax ñii daan jublu al aqsa masjid al aqsa ba mujj ñu bàyyi ko di jublu kaaba ga yàlla ne yàlla ma nekk masjid al aqsa nga xam ne ña fa nekk di ko jublu ci yàlla luñ jublu ku jublu kaaba gi ci yàlla lu jublu naka noonu ba tey it képp koo xamee ni ni da ngaa demoon masalan réer xamoo fu penku nekk ndax doo julli ah kay da ngay julli foo mën a jublu am nga ngërëmal yàlla maadaama da ngaa da ngaa xamut foo julli julli ga baax na mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam kon mbokk incha allah ñu ñu ah waaw ñu mujj ci mbokk bi ah la wax ci fils adopté waaw nit ki day mën nañoo nangu adopté nga jël ko yar ko sa kër fonk ko ni ngay fonk say doom waaye amma doomoo ko ñu jël ne yow yaa ngi tudd Modou Ndiaye moom ñu koy wax doomu Ndiaye ku koy dàkkantal jàpp ne yaa ko jur loole moom islam nanguwut loolu borom mu ne ud'uuhum li abaihim fa in lam ta'lamu abaahum fa ixwanukum fi din mooy daal nañu xam ne yow njëkk ngay def ci moom waaye am na beneen baay budul budul budul budul yow yaay baayam bu dee jigéen it ñu xam ne am na beneen yaay budul yow yaay yaayam loolu moom mooy mbir bi mbokk mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain